Sané borom Diouf Loor. Ah, waaw noonu. du sant borom bu baax a baax. waaw du ñu gisee tey saa mi sa yaram daa tàng rek. mais noonu la. Ah. lamb la lamb la ñu gëm. Ah. lamb la ñu bëgg lamb la ñu choisir pour suñu yaa la rek di ñaan yàlla rek mooy ma ndam ci kawam quoi ay ndaw lañu. day jëm ñoom ay grand lañu waaw dañuy sant borom bi tamit. di ñaan bu baax a baax lan lay wax supporter yeeg fans yi. a yokk jàppante bi rek waaw ñoo leen ñaan bu baax a ñu gën a yokk jàppante bi gëm-gëm bi tamit gën a sax kontaan si ñoom bu baax a baax. ah Doudou kon ñu ngi lay jaajëfal. ah ok jaajëf waay. boo dafay ordinateur ziar la. waaw ah, di la ziar bu ah, tey noo gisee lamb waaw te yàlla dogal nga egg si final yaag Doudou Sané waaw mu doon loo xamante ne saison bi ren Doudou Sané ordinateur loolu duo la combat soog la léegi loolu noo ko dundee non du combat soog waaw ah, du combat soog waaw ah. dañuy compétir rek dañuy compétir waaw waaw ah, Doudou kii ordinateur combat bi fu mu toll combat bi combat a waaw combat bi waaw le 13 février la quoi incha allah ordinateur lu muy wax fan ses supporters yi waaw di leen woo si bés ba rek ñoom ñëpp ñu ñëw teew quoi dooleel ma quoi waaw léegi tey loolu ñu mën a wax ci final bi tey waaw final bi waaw comme ni ñu koy bëree rek ñun moom amuñu problème dañuy bëre rek xam ku yàlla may ku yàlla may ndam rek mu jël quoi. waaw kon bonne chance aujourd'hui. ok. final poids lourd Modou Faye ordinateur borom ñaaxar Doudou Sané bu Diofior waaw waaw fii ci Fatick le premier janvier 2022 Doudou Sané moo ne woon gannaaw ordi leen jàkkaarloo di bëggee Moda Diouf le policier le policier mannequin waaye Aliou Gueye naa ko sow borom Joal Fadiouth Aliou Gueye naa ko le Félix ziar naa la Moda copain Aliou Gueye naa ko sow ziar naa leen grand V Sassar le docteur Virosa bëgg naa ko waaye sama grand Alpha Faye ziar la. Mamadou Faye le gendarme bëgg naa ko Aliou Faye borom Granada Doudou Sané ordinateur Modou Faye di bëgg sama papa Pa Diop bu Fimela sama grand Sam Sidine borom Fimela ziar naa la grand Pierre Ndiaye bëgg naa ko ca Maroc waaw ay Saliou Faye sama tooma borom Sobem docteur ziar naa ko Lamine tey moom moo demoon Dias jaar naa ko ndeysaan Lamine ànd ak Ndingi Fall ak Ibou Loul Doudou Sané ordinateur Doudou Sané ordinateur Doudou Sané ordinateur Doudou moo ñu woon waaw ah, waaw dañoo bëri ca Ndangaan vingt cinq minutes niil Doudou Sané génnee ko ñu ñëwaat Diofior ordinateur Doudou Sané foofu Doudou génneewaat ko Doudou daanaat ko final waaye ñu njëkkee fa teppasi ordinateur moo ko daanoon kon tey lii day neexaat tey fii day neexaat waaw waaw ndeysaan di bëgg waa Kobo Ngoy 1 le docteur Samba Faye ziar naa ko borom Ndiédiène candidat à la mairie de Fimela bëgg waa Palmarin Doudou Sané ordinateur mi ñoom ne saara baade anani nje na mawarele ordinateur ordinateur Doudou Sané yambayang Sarabade, Thank you. Doudou Sané ordinateur Thank يوم يوم تاقلف على تبيتهم في الأرض والنار وبما نزع على تبيتهم في الأرض arbi lu mu wax Doudou Sané am na avertissement waaye Odi tamit day jël avertissement parce que arbitre nee na bëre wuñ waat na combat bi Doudou Sané ordinateur ordinateur Doudou Sané seen combat du neex Doudou Sané ordinateur ñu ngay bëre ordinateur Doudou Sané ñu na combat bi diggante Doudou Sané ordinateur Modou Faye waaw waaw waaye le grand Amadou Cissé naa ko Amadou Cissé bëgg naa borom Dakar waaye ndeysaan di bëgg sama grand Ibrahima tey moom a dalal fii ci Fatick waaw Dudusane ordinator Ordinator dudusane Adur awat ناس ديجو ordinateur am na dernier avertissement ak bi si waat Renate Durisane. Devan, may dem la ko defoon joof yoon da koy tegal 16 wala du ko def Doudou Sane da nga jël avertissement arbitre joxaat na Doudou Sane avertissement kenn ku ne am na deux parce que Doudou da ko xoj nee na arbitre lu mu wax arbitre sifflé waat na ordinateur डूडू शाह ने അരുണാഥൻ തീർച്ചയായും തന്നെ അവർ നാട്ടർ തീർച്ചയായും തന്നെ അവർ നാട്ടർ